yee dipite yàlla du bàyyi dóore mukk ba abadan du ma combine bëre bëgg bëggul bëre bugul takkal leen seen ngemba ba samp ndënd yi supporter ngeen rek combat bu mag bi man ak Diézy la fis maa ngi arène yaa ngi mbapat nga bëgg a bëreek man di ma rëy ak saay fa téeméeri défaite zéro victoire aw ma défaite maa ngi sëgg di daan everyday di waar laajal waa teg jëmp ku joobul doo coob tànk yu puseer a ma gënal taat yu puseer Yeah, <laughs> Allez, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans votre émission Tribune Pop. Bienvenue sur la Cap TV. Et aujourd'hui, bataille ñi fi studio Tech Jam Production avec ma main député Yalla et moom dafa xamul ni <laughs> ministre Yala. quoi. Alors député comment vas waar. Oui, nice bro. le bien. Nem Oui, député Yala. Euh, Maman, bi mun nga ñu expliquer si yan projet nga nek brièvement. waaw ni ni ma ngi job ben projet album. diko ko joobeek waa Tech Jam Assane. xam nga di ko joob ak ñoom daal xam nga ñu ngi siy jàpp bu baax a baax xam nga di wax gars yi ne ñu wàcc rek xam nga maa ngi ñëw quoi te ñu ñaan quoi Sénégal yàlla def si jàmm. mais lu waral nga jóge Thiès ba bàyyi fa studio yu bëri ak label yu bëri ñëw ba yëmbal ne da nga fiy joobee say produit waaw parce que boo xoolee 2016 laa dugg si musique bi Thiès fi ma nekk am na lu ma fa def te tamit jaar naa fa ay studio mais Dakar laa yaroo quoi. 26 sama papa fa la yore daara be laa woon du bon sama carrière yëpp daxaar laa ko defee mais après dama dellu fi ma juddoo pour dem xool sama cosaan comprendre nga après 2012 laa fi quitté dem suun ma ñëwaat fi 2019 war a job sama projet album ak waa Teg Jëmpa xam nga man daal Sénégal laay teewal quoi Sénégal laay teewal. alors avant droit qui moom mooy euh, producteur wala beatmaker autant pour moi ou artiste alors Jeff moment bi yaag sa artiste est-ce que mun nga ñu wax tuuti ban ban relation ngeen ah euh, oui par rapport ak bi ñu commencé job hein. donc euh, am ay relation yu bari parce que déjà nekk nañ ci et tout quoi mais avant damay présenter donc pour nous ma xamul it's boy Jeff from the One you know waaw waaw mooy loolu. ok <laughs> ok Jeff mooy loolu quoi ok donc pour le moment moom est-ce que mun nga ñu wax peut-être ay qualité am comme que moment bi Thiès la jógee te aussi c'est pas donné à n'importe qui mu jógee Thiès Assane am confiance yow dénk la ko ne la dama bëgg nga gérer ma ko tout ce qui est instrument. waaw li ma mën a wax ci moom ah benn qualité am taalibe la quoi donc voilà je veux dire je la qualité je veux musique quoi pas talibé la ah. dafa etc. est ce que am talent bi est ce que am potentiel bu je veux dire. Euh, bien sûr parce que de toute façon nous ah, ñun nañ si quoi est ce que comprendre parce que musique moi man du si la chaque fois de la forcer sama côté quoi non non mais damay jéem a yow ban genre musique donc euh, ma jëm la situer ci côté bobu nak quoi donc voilà légui après loolu jot nañ def ay production là par exemple suma waxé ben production biñ def avenir en featuring avec euh, Buzz MC même tu vois té Buzz MC euh, artiste la bi nga xamante mang koy nuyu de passage donc nek na artiste bo xamante ba euh, il a validé quand même quoi donc voilà ñom ñaar def nañ ci featuring té son la bi nga xamante ne ba boko ko di nga xamni c'est différent affaire la bi nga xamante donc euh, ça tient à lui quoi donc mu def ko mom la quoi. ok à part loolu non je veux dire yow yow yow personnellement yan qualité yan potentiel nga am ba asante Seck Diemp di am confiance di la jox artiste bu melni aussi, yow si dañuy gis que moment bi yaa ngi entamé ay projet yu bëri bëri est-ce que mën nga ñu wax yow en filigrane si yan projet nga nek ak yan artiste nga jot travailler waaw ba comme gars yi niñ ko xamee man jot naa travail ñu ah. donc Exil cool, Tarkala you know donc gars yu bëri fii ñu ngi leen di dégg donc joom naa ak ñoom quoi donc parce que ñi bari peut-être du xam quoi buñu gissé One Roof gis saala ko teg jëmp gis ko akaler mais non la fa démé quoi parce que tek jump fini, nii dama fiy job comme technicien comme beatmaker comme compositeur voilà euh, des fois may apporter sama tous de production Euh, fële tamit ak leer foofu ba euh, studio d'enregistrement la comme euh, studio d'enregistrement bu teg jëmp donc foofu tamit dañ ma fa engagé donc damay jéem a xool nu ma amee sama temps door fii door fee léegi quant à One Roof dafa nekk benn affaire boo xamante ne dañ ko sanc depuis bu ñu nekkee xale donc donc muy man ak Sadou donc ak Era donc euh, mu nek 3 nit ñoo xamantene dañu amone même vision même passion donc euh, ñu ñu ñu ñu entamé benn gëm ko donc euh, ñi bàyyi nañ jàng topp ci ñi ba tey ñoo ngi jang ñi compliqué na. yow yaay DG bi quoi. waaw man maay directeur général. donc bi xaalis bi mi ngi ñew faal. <laughs> non de toute façon mo ngi non en tout cas suñu objectif du xaalis quoi donc suñu objectif réussite la ma sax jour dama koy wax du xaalis quoi parce que. Euh, bien vrai que xaalis mooy tax après. Ah, ok <laughs> loolu dinañ si wax sa <laughs> réussite la du xaalis ok bro yow moment bi am nga confiance si lui j'espère et aussi nga waxaale ñu sa last word parce que temps bi dañoo xot et puis euh, dinañ la promettre que dinañ fi ñëwaat def une émission spécialement à vous. si waaw saawaay day liggéey mu ngi job ay bit yu nice maa ngi ciy gis sama bopp te lu ma gën a neex ci moom bon borom baax la quoi lu ma ko wax rek loolu lay def. lu ma sant tamit loolu laay def xam nga yàlla baax na ñu ngi ñëw parce que man sentiru ma ne sax maanaam Sénégal am na yeneen artiste dama gis ne man kese maay artiste parce que li tax ma wax ko xam naa ko bo nañoo ne kuy yoot du sëkkat mais dinañu sëkkat nag parce que ñu ngi joob li ñuy joob wóolu nañ ko di gërëm tamit waa teg jëmp yëpp waa benn baraak waa yëmbal Assane tamit maa ngi koy gërëm diko sante bu baax baax xam nga parce que borom baax la parce que mu ngi jàppale jeune talent yi tamit xam nga ak télé bi xam nga yeen ñepp yalla na leen yalla may ay télé yi télé yi télé xam nga li ngeen sentu tamit yalla na leen ko yalla jox parce que yene fi nekkal tout quoi yeen dal jàmm rek ngeen di am quoi bu soobee yalla inshallah yeah Assane eh nga man Assane amin et eh, merci beaucoup à Assane aussi merci beaucoup à vous aussi alors Diaf votre dernier mot. waaw di jaajëfal ñëpp rek waaw di di di di waaw di leen bëggee parce que loolu la quoi tu vois label yi dañuy soxla lu mel nii quoi ku si mel ni Cap TV donc yow xam nga nu mu demee Cap TV ok donc du coup euh, loolu la quoi donc affaire bi nice na man content naa ci maa ngi bëggee gars yëpp équipe One Roof yi donc ñoom ñëpp ci biir ah maa ngi leen di bëggee jaajëf. alors merci beaucoup ah gars yi One Love